Ah, ok, ok, ok. ok. allo jàmm ngeen fanaan may ñëw dem nag tey du ma fi yàgg de guys honestly may dem poos yére dama bëgg a def tuuti make up bu ndaw duma def xef tey promise guys duma def xef tey aleen suma jaaro bi ñaari jaaro la nga koy dugal bi ci nopp bi ba pare dugal ko ci gannaaw bi allo sallallahu alayhi wa ouh te tey may musóoru nag xaar leen ma ñëw musóoru allo ça va ana woyu wu man basan suma woyu wu man boobu fa man neex ba I'm good I'm good I have to go and post stuff people buy stuff I have to go and post it yére yi moom laay post yi sax fa ko jënd yére yaa ngi nii de yeneen couleur yaa ngi ñëw xam naa yeneen couleur right now am na yeneen couleur yu ñëw ku bëgg mu bi ku bëgg mbubbi julli rek ar njeng njeng njeng njeng bës leen te séddoo ko du yàgg na genn wàlli waxtu yooyu rek may dem naan kafe laa ñëw ak waxtaan ak yéen ak fàttali leen yére yi may dem may dem posi yére kafe Touba gi bu leen ko fàtte maa koy jaay jigéen du du fowukaay jigéen du mbalit jigéen du fobeerekaay loolu la woy wii di wax wéy wii la askan wi war di wéy bët bu yàlla sàkk façon yi wéy yii la askan wi war di wéy waaw jigéen du fobeere kaay jigéen du mbalit wéy wii ak a baax ta neex góor gu soxodee du bëgg wéy wi waaye góor gu baax te yërëm jigéen façon yi wéy yii fa lay neex waaye góor gu soxot du bugg façon yi wéy wi déglu leen wéy wi rek dégg ngeen dégg not good. a ko defar after it's not suma kanam gi dama sangu waaye diwuma ko taxale ma dem indi suma diw bés leen te seedoo bu diw bi yàgg na genn wàlli waxtu rek ni nga def jigéen in the world ku bëgg mbubu julli rek nga ñëw si man la femme la dëgg la kay la femme la baax waaye la askan la si butu la taraxal la femme jërë ngeen jëf mais ñoo dem sax guys am telling you this <laughs> vidéo bi di yàgg de am telling you this guys mais ñoo dem pause te weer baa ngi neex so su ma demee nii léegi nii da nga gis ne post office bi su ma dem town dem post town bi ko post office bi xamuñ liggéeykat saa woo demee ñu ne la ubbi wuñ moo tax ma jël forme bi sax pour apply foofu <sighs> bi ko beneen liggéey buñ ma bugg a jox dafa sori Gayel Center bala may dem ba foofu kay ma jël bu jege fii mu liggéey post office da waaye gars yi ñëw nañ la train xaw nag jël naa seen forme bi sax ba commencé di ko fil démb war koo jekkale te yóbbu ko te defuma ko na si téléphone bi di romance ak suma nijaay di waxtaan ak dama doon nekk dagaase yére tamit di paak oda barki yàlla xef yi la price someone for the price who what did they this one purée bi ah ok bi bi bi ma lonk nii ngay laajte bi ma lonk nii lifin la euh, juróom-ñetti fukki pound dama ñëw pour defar make-up rek te dem damay dem pause waaye make-up ma def xef de may maa bëgg ngeen oda xaale yére yi pour ngeen xam ne mun ngeen a oda mbubbi julli xam naa different color ak mbubbi góor ak jigéen mbese ñi góor ak jigéen waaye bësu leen séddoowu leen mën xam lu may jaay moo tax yi noonu instead of nit ñi nit ñi lonk di saaga ndey ak juutu mun naa am loolu ngeen bëgg mun yi noonu kuy jaay ngeen xalaat ne su ngeen ko dimbalee borom fay xaji màkka te ngeen sibbutu yi noonu waaye am na nii nag may use ba tey di ma déglu kon suma xàq dana leen daal ba tey di understand yéen nag may déglu kon génn leen bu dee mën leen maa dimbale jëndu leen man leen a bës mën leen a séddoo loolu feebar la jërëgéen jë wuy wuy wi de sax man wuy wu man wi laay xutte waaw wuy wu man ma see xam na mbubbi góor ak jigéen yeneen yëre yaa ngi ñëw waaye foog naa yow di xeg si ba first week weer I don't think that nice right now lii de bu ma ko jëndee ba tey du ko use sax super drug laa ko jëndee woon this makeup use it once or twice I think kuy reenu soo fayda laa ne ngeen di leen wuyu jigéen bi de ok déglu leen ko rek please góor gu soxotit na ko déglu te jàpp si yàlla te déglu te xalaat yaayam ok déglu leen li jërë ngeen jëf jëkkëru gambien nga bugg ñaanal nga xam jëkkër ji may ni góor gi ma nopp nii ak rafet te baax masala te ku ma waxoon ne gambien du ma ko <laughs> maa demoon ma ne kett naa Gambien yéen ci kër Sénégal laa wut ah gu bon baaxul fay tax nga ragal góor ñi yëpp te fekk góor ñi yëpp caaxaan. xaaral ma def sax tiktok bi weexal bañ ma laay bi nit ñi def. Mhm. bëgg it kanam gi ma wàññi ko. xam nga ne li nga def ya li nga def ya li nga li nga li nga def xaaral ma gaaw dem puusi ma ne fi di fecci xaaral ma gaaw me ko buta dem puusi guys so yére yi ku jënd rek ma dem puusal may dem puus ni okay guys te yéen ñi dëkku Angleterre da ngeen war a teel a order boo dëkkee Angleterre sax nga boo teelee jënd mbubu julli time julli boo yónnee xaalis fekk yow jënd nga mbubu boo ko defu doo mën a jënd mbubu ndax ngay yónnee xaalis ba sa xaalis bi jeex am na different couleur yi couleur yu weex yi tamit mu ngi ñëw ba seen yu weex yi yuñ jam yi mu ngi ñëw tamit waaye yooyu noonu mooy yi ak si jos first week of weeru koor laa koy expect I think am na yu dark blue different colors jërëjëf woman thank you baby I love you suma handsome baby yéen bi a war a wuti jëkkëri soda suma jëkkër jëkkëri soda is the best jëkkër ji soda wala ku woon ci soda is the best ex soldier wala soldier li jënti leen ko fu ngeen ko mën ci xamee léegi tey may promote soldaar yëpp nag tout wax naa leen su ma amee jëkkër ju baax danaa promote góor yi askan yi bañ nekkee du ami jo feeg xaw ma ko nag bu set ma tànn ci góori askan yu bon yi ah loolu laa xamoon de ngeen di dégg ngeen ko bañee ngeen de seen bopp ne ah da yéen ma toroxal <laughs> subhanallah daxel na aaj ku dayal fa may génnee yére bi si gannaaw du nangu sama fii fa tuuti boobu dama ko di ñaawalaante far moom ngay <laughs> ni cey nit ari njehen joni noon lan ari noon bebi njehen lan njehen noon lan ari noon njehen kenn gisa sax lu may séddoo tabaxañaa nag bon ak tayal surtout yéen ñi wax ne yéen a baax man maay ko bon man mi dee kaani ñi maa suma nijaay suma bëñ bi dama ko bëgg poose kon ne ma takkee suma jaal yi noo koy def Ami it's okay you looking good this morning xam <laughs> naa ko waaye may defaat tuuti waaye duma def liben bës leen te séddoo jërëgéen jë ku may ree ci suma jaal yi ka ma reere koo ko defa reeb soo nijaay njeen njeen njeen njeen turu ar njeen kay nañ dem toxu sa digg xàll ba sama nijaay ba xaar dina si si si yëpp maa ngi yow ma di la tayal cere dëkk sa digg xàll ba du ñu neex de ñun ñaar la xiir a bon léegi lu ngeen may reyee nii lu su ma nijaay li ma ko def dëkk salaat ma ngeen dëkk laa wax def ko ah bébé ñu dem dëkk sa dëkk digg xàll ba rek far ma xabal xaaduna si ndax nit ñi bay korop te bëri affaire te xaaduna si lëj nañ dem dëkk sa dëkk digg xàll ba maa yow rek su ma nijaay far wax ji seet benn xàll bu kenn newul ñu dëkk fa fàkk tabax fa suñ kër mooy yéen kii kum la kii day duwul suñ suñ suñ làkk ko kay kenn soxlawu ko xaar ma def góor gi moom it fa mën a wéy de express xaw ma góor gi tudd express moom ku ne góorgóorlu xay yi may def dof ma ñëw jaale xay yi may def dof xemoo def moo ko yëg jërëjëf thank you xay yi may def Uy. dégg nga loolu daf dana ko xam Mm-hmm. lii def xam na ko xay yi may def dof yëpp baleen suma kaas bi fa lakk fii maa ko tegoon sa kaw ku ko ba di ko tàngal kafe gi bu yàgg moo tëmpe ca kaw gaal ba yoonu kenn néew ci café Touba gi bu leen ko fàtte bu ngeen di jënd yére ak yooyu wala bu ngeen jënd yére sax ngeen jënd café Touba weeru koor waa ngi ñëw ngeen jënd mbor mbor ak tenkiliba sungu fi buy ngeen jënd ko sungu fi euh, euh, euh, mbuumi nebedaay ngeen jënd ko mbuumi nebedaay bu fresh bu jogee Afrique sunguf si fañ ma sàkkal nii raxas ko weer ko mu wow ñu yónnee ma ma walal ko sama bopp di ko jaay nii feres duul yi tubaab yi kaste ci ay paquet nii déedéet moo man suma xéen yi dee fa mel lu ngaana taxawal ma defar ko njëkk bala ma ki ngëm bu ma newee daay moom boo booy lekk ceeb ak loo manti lekk salaat sax boo koy lekk nga ciy suy tuuti ci kaw lekkaale ko te du yàq cafka ga dara dafa baax si yaram waaye wetu leen ku leen yéenee jàmm du ngeen ko faale da ngeen dee de lekk mbumam nebedaay bu dul man sax ngeen wuti ko bu ngeen foogee ne su ngeen ko jëndee si man may aji màkka ngeen jënd ko feneen wala lijjantil ko seen bopp ah neexule na dimbali waaw aca ah, toog leen noonu du lekk ay may mayonnaise ak mburu ah dina sàngoog yéen a ngoog yéen a koy yëg te bu ngeen xoppee du ngeen fajo surtout yéen ñane Afrique man de xama kii lu mu bind nii nee naa star xaw ma lan du ngeen bos yéen ngi mel ni ay ngaana yu si butu nag fi ne nii te man sax may far dem may ñëw dem poosi te naa ji fa génn nag nga rafet sa biti ba ngeen mel ni ay ngaana yu si butu rek njën njën njën ar njën ndaw thank you saa ma defaree benn mu baax beneen bi su ma ko defaree du xemoo

jàpp si yàlla lu dul yàlla neen na Baby, let's chill and be cool. I don't melody you mess so. But no, I don't ever say so. Ah, nga xaw a niroo. Yaade. Yaade. Yaade. problème bi da ngay xalaat bii ngay def mu mel nii wala bii ngay def mu mel nii doo xam ngay def mu mel nii wala bii mooy mel <laughs> na ni <laughs> ba xuute de bii moo gën a yaatu xanaa ma def bii mu yaatu moo gën a yomb oh I'm done with this making money that's the eBay way start selling now yéen a ngi melati ay ngaana yu lekk ci xët man xam su ngeen may di tiitam seen yuur gi fay dem China am xaw naa nuroo de ah xaw naa nuroo yéen a ngi ni ay ngaana yu seetaan bësu leen seddoo leen anyway may ñoo dem sànqee bon ah, naa nuroo de maa bëgg na ngeen fàttaliku ne su ngeen bëggee jënd yére yi maa leen di jaay you know yére góor yére jigéen wuy jërëjëf ki may may noonu askan wi ndax soo leen di bëggal ñu mel ni ay ngaana yu lekk ci boo leen di bëggal te booy kaa askan wi ñu ne ngay kaa askan wi ngaa bon te boo leen di defal commune ñu di la xas di la seetaan di la woy daal askan wi ba dund métti di kon fii tam waaye nga jaar si yàlla baaxut ba tey bi dinaa ko posté bala nga maa takk suma nijaay ah lii rek jëndal ma bëñ ma monté ko ci laay guma ko de may vidéo sax di ko gis suma xol bi dagg rek mais mel ni màggat mu sibbutu te ñaar fukki at maa ngi amee jàngale suma nijaay dama ko poose la Fatou de mu ne ñaar fukki paam place ba mu demoon di practice liggéey noonu dentist office boobu xam nga Fatou loolu la bëgg bëñ la bëgg a liggéey su magee mu ne mu ne laajte na ko ñu ne xaw ma pour ñu pooseel ma ko su ma ni nijaay dama jëndal ba ñëw ma def ka xiir mbala su may ñëw laay yéey ci ngom kaste ko ci ma ne Gambie ñu ne élection ba nga xam ne fi mu ne ni moom lañ doon def bu yàggul du élection yi président yi yeneen élection yi député yooyu nit ñëpp fañ doon yéey ci ngom di ko dànk di ko dugal ca lifin ya di ko def péri péri wateekaay Gambie bu yàggul xam na ko ko doon wax youtube gis naa ko te te te wax na dëgg foog naa mu ngi ko doon waxee you know ca dëkki yi amat amat amat gite amat gite dégg ngeen ñu ne fañ bëggoon ñu wiin ko nit ñi di yëy ci ngom di ko dànk di ko dugal ca ca ca kees ga dégg ngeen Afrique de dégg ngeen waa Afrique de ku la waxoon ne nit ñi dañuy man li may wax ci ngom a tax suma xel daj ko ci ñoom sax laa ko déggee ba tax ma di leen wax li yëy ci ngom kaste ko ci fa ñuy fañ doon yëy ci ngom ya ba mu jeex ñu dànk ko moro moro ko mel ni bal yi ñuy watee ñu di ko per yi watee kaay di ko dugal sa per ca kees ak per ga Gàmbi yéen yëgu leen loolu nit ñaa ngi wax mu nga YouTube laa ilaha illallah Afrique ndax dégg ngeen li ma leen di wax wala lan yéen yéen lay waxal ndax dégg ngeen li ma leen di wax ci ngom yi ñuy yëy ba pare moro moro ko ba mel ni ñu jël ko dugal ko ca kees ak per ga Afrique aka ñoo tappale ta bon ah ci ngom moo nit ñi di ko yëy di ko di ko watee ndig bu gën ka xampe bum gañe wala keneen ka gañe Afrique tappale korob danañ hey Afrique yéen a ngi may déggam laan bi ko yéen a ngi ne yéen a ngi this is serious déggu leen li ma leen di wax Ooh, look at this. Oh my God. ma ne ni nit ñi def seen yéen yi laa de waaye bëgguma yéen yi bëri boobu ami bëgguma mu fake boobu dama dee bëgguma lu naturel mm-hmm. ndax déggu leen li ma leen wax nii wala lan ndax seen yoon néew ci this is serious Afrique noonu la ñuy def ndax Afrique war nañ di def loolu yéen laay waxal xamoo tax may yuuxu sa laa xamut maa mi ma ñëwee ci vidéo di yuuxu jërë ngeen jëf bës leen te may ñoo dem waaye may jaayaale jigéen ñi ñëpp yéen moom woy wii yow li nga def but baaxul but I don't care I just wanted to flex now I have to go oh my god for who omp oh ngi melaat ni ay ngaana yu lekk ci soreegu leen noonu de ngeen a foog ne su ngeen bësee vidéo bi ne man may jaay yére te man may noonu laa koy bayee ami ngay lan mu ne ami lan ami eh, xamul lan xamul nga yaa koy yëg yaa koy yëg xamaloo wax su baaxee su bonee xam na suma yenn xarit yi ma dee waxee joobis du ngeen bës ta séddoo ngeen ne këw nag surtout xeesalkat yi ma bañ te saawu ma ñëwee ñu ñëw te ñooy seen ennemi bopp kat xeesalkat bu gudd boppam boo bañee duma wàññi dara waaw bu gudd boppam ba su xëyee di raxas boppam buggut boppam moo moo bañee lu may wàññi ma jàpp ci yàlla di ko seetaan faale bu ma xeesalkat bu ma bañ buggut boppam te nag man lañuy ñuy gëñee nag waaye nag fu mu ñëwee ñu ñëw xeesalkat ma bañ te mere ma yëpp am you are so beautiful thank you <laughs> kooku mu nekk rafet la jërëjëf waay ah su ma xëy da si wax ne maa ma ñuy tànn ci maa ne woon du ma poose xef di waaye soo tourné ñëw poose xef ndax gën a kiiw su ma deful xef yi nag muy gën a nekk gune nag gën a rafet waaye maa bu ko def xew xef tey you know gën a cute aaleer xef yu gudd yi rafet waaye guddul boobu mu ñëw monté ko ma ñëw monté ko mel ni tan mu sibutu nag di lëpp lëpp leen te séddoo ma ñëw monte xef yi leen bala maa dem puusi yére soo bu leen fàtte mu bi julli guys ku bugg rek jërëjëf waay maa leen gën a bugg yéen ñoo bugg yëpp sama fans ma bugg yëpp ma neexumaa bugg ndax dama dee wax dëgg askan bi maa bugg askan bi wecc suñ programme bu bon bi bi ñuy sonnal di sonnal suñ doom yi bi tax ni ñëpp di dem sëriñ ni ñëpp di stress nit ñi ñëpp di xam problème suñ programme bu bon bi xeex loolu moo ma tax a jóg. moo tax ma bëri noonu comédie rek taxul maa jóg comédie moom like naa ko reeloo nit ñi wàccee sama bopp. loolu ay love di bu ma nekkee xale ku ma xam-xamee na ma loolu waaye nag loolu moo ma tax a jóg te lool ku koy def ngay bëri noonu surtout ci askan wi parce que askan wi miinuñ sax ku leen di wax dëgg ku leen jëriñ te damay wax pour man ak suma doom yeeg doomi nit ñi looloo tax mu bëri noonu kon nag man neexuma bugg kon nag yéen ñoo bugg jàmbaar ngeen jërë ngeen jëf ndax wuy wu neex Oh my god, look at this. Oh my god. su ma ko defee buddi bee gën a tuuti. Thank you.

du ngeen bës na séddoo barki yàlla yéen a xayaanta saxot ta bon may jaay lonk sama xaftaan bi ngeen ne yore te su ma lonkee xaar di leen wax dëgg ma xas saxaar ma ñëw lonk Macky Sall bu subaa jàmm ma lonkaat Macky Sall gëj naa koo logg sax jërëjëf yëpp yéen ñi bës ak a séddoo yëpp yal na leen yàlla fay. laa ilaaha illallaah axalin ko bi dafa mel ni fa xullee ci kaw fii what the hell buub la te duma koy xàmmee bëggëj bëggëj baa ngóob ndeysaan dunu dara kawarit xam naa ko lu nekk kenn du aha may moom néem bi sami seen yaay laa ñi xam yaay tudd amee mag yi tudd ami yëpp def leen seen bopp ni te respecté baalu fettel yaa soo fi thank you yes practice makes perfect ñëw na baax na ndeysaan masala mi yaa rek si wéy la dem daal taal say noonu amul kawar nga defar kawar booy musóoru nga créer war na def nag di def sax bopp ni regëj regëj de Womanizer xam naa si different couleur yi ak a muuroo rafet asalaamaaleykum suma nijaay asalaamaaleykum suma nijaay doo jow julli gaxe teñ te diem na de doo julli gaxe di subhanallah tadimiti ya bola nak man sa jabar la nii laa demee sax war nañ nii laa demee farafet balu fetal ya lañuy def ni nopp yi ne feew feeñal jaaro yi xawma nopp yi gudd wala barke yàlla sama nopp yi réewu nii Now, here's a secret many in the life insurance industry don't want you to know. For as little as just £2.50 <laughs> a week, Hello, Assalamu alaikum. Yak la buzz, yak mu tari buzz, tari la buzz, yak la buzz, yak mu tari buzz, eh, tari la buzz. Ding ding. koy bi may naa leen ko yéen ñëpp darling call jërë ngeen jëf thank you so much darling call may naa ko suma jabar yi suma càmmiñ ji ñaari jabaram yi sey si wu leen yëngal kër gi góor yéen yéen a baax te mën a sëy dara sax ma ne naa dem poste doon pogee poste man kay duma pogee ñu ngi génn seen yére yi laaj nga ko sama nijaay yëkkatam mu def boppam ni sabakaar Sonko ah moom laa ci xam ni ñuy seetaan ne yereñ duñ bës duñ seetlu tey enjoy sama vidéo xaw man suma seetaankat yi naa dañ nañ dañ ma gàddul xàq boo xam ne àllaaxira ñoom ñu ci bëri jërë ngeen jëf yéen ñi doon nit yëpp ndax ñoom ñu si bëri ba ñu ñëw di ma seetaan di ma xas di ma jooj te ñu ne ne man maa bon man mi kaani mi man mi wax askan wi dëgg moos ñu ne man maa bon ñoom ñi naafiq ci askan wi ñoo baax te bu ñëwee di use suma énergie bi di ma xas di ma jëw duñ bës duñ séddoo duñ donné duñ laaj bu xalaat na bañ fay ma suma énergie biñ ma xameel yëpp ma xëmb ko dugg xaajana fay ci nit ñi may li ma leen xameel li ci des ma xëmb ko duggee ko xaajana di leen seetaan acca leen rek du ngeen di jaay soxot man ma xam li ma xam di leen seetaan wala taxaw leen ba àllaaxira ak jàmm rek waaw ngeen fay ma li ngeen ma toog di ko di ma jëw fay ma li ngeen may seetaan te du ngeen bët du ngeen séddoo du ngeen donee te bu ngeen doxoon beneen bu ma doon waxaangale ni kon ni ñu soppoon ma te ngeen dundu di te soxo te bon te saa yu ne ma ñëw di leen bégal fajar ma njëlu di leen bégal ngeen njëlu di ma xas di ma jëw ba janta so sa ëllëg sama njëlooti ngeen njëlooti <laughs> aw bu àllaaxira walla aw leen ba àllaaxira rek ngeen naa man may kaa nit ñi waaye bu àllaaxira bu ngeen ma fayee yéen li ngeen ma ameel ma fay nit ñi ma kaa ba desal xam bu dugg àjjana di leen seetaan te yen du ngeen dese dara surtout yéen naafeq yi ne ci ron gannaaw du ngeen di lonk nit ñi ngeen ne loolu baaxul waaye ngeen di jëw ci ron de ba tey da ngeen xamee nit ñi àq yi ni man ngeen di jaw ci ron ñeneen ñi ah baax <laughs> eh, my god Alice ba make up jërë ngeen jëf may ñoo dem fi ne nii léegi tey ma ñoo dem may dem pause fa xam ñu jënd yére ma di ko pause soo gars yi bu leen fàtte ko bu gumb bi julli mbese yi góor yi mbese yi jigéen yi xam na ak yeneen façon yi piis du nga seen dal ñuul ni mu rafetee ngeen di xeesal ni ay golo yi ko wax ngeen mer te seen doom yi ñuul may promote seen doom yi di promote ma bopp ak suma doom yi ngeen ne bu ma ko def because yéen yéen a ngi wax seen doom yi ne seen ñuulaay bi baaxul tax ngeen def ma ennemi te ma di leen promotal seen doom yi seen ñu laay doom yi ma di ko promote ngeen war a santi yàlla xallu kuy promote seen doom yi seen ñu kan la yéen ñi ko dindi ngeen sant yàlla ma di ko promote ngeen rus tax ngeen def ma ennemi du ma leen faale ma ne jog di leen seetaan laay lay la la ah leen rek li ñu rafetee allah soo ni yee ah ma rek. jigéeni Sénégal bi yéen ñi rafet ngeen di xeesal wenn ñu ñaaw <laughs> lay leera la masha Allah te xeesal fay yàq seen der bi nag ngeen ngeen di hukk yi si buta <laughs> su ngeen ko bàyyee sax fay yàgg bala ngeen rafetaat balaa caadu ngeen bare ca jàpp si yàlla <sighs> ah. noo ci gën a yàggee rek boo ko baxee mu gën a yàgg balaa sa der bee ñëwaat lii rek lii ko dàq ba xam ñuul moos sama soxna li ngeen war a def mooy di lekk di lekk yu baax yaram yi ma leen di wax ni bu set aka naan ndox aka tëdd nelaw aka posete seen der fay rafet ba surtout ci xam jëkkër di nangamante moom loolu it fay rafetal yaram yi noonu <laughs> subhanallah oh my god xaaral ma noppi man xamu jëkkër sax imagine su ma xamee jëkkër nag kon mu yëpp xamu jëkkër ba suma jar baa ngi rafet imagine ba li ma nang taan kon ni may gën a rafete subhanallah baby noppi naa bu yàgg du man maay wax noonu tey rek dee suma nijaay bëggul parce que ñu wax I hope ne newut li ma seetaan si liggéey kaayu xaw ma ndax mu ngi biisi xaw ma I hope ne déggu li ma wax noonu you know de li ma def nii tuuti concealer rek laa def nii de because su xesal ba sa der bu rafet loo def rek mu def sa der fa rafet naturel xeesal kon nag yéen ñi may mere def ma ennemi ngir maa ngi wax xeesal xaj yi yëpp yéen man maa leen bugg ñàkk a xeesal fay tax doo gaaw a màggat ah man ku la wax ne ñeent fukki at ñaar laa am man Ami Diop ñeent fukki at ak ñaar laa am. newuma di use defar kanam de tuuti laa si am anam sax mu ngi nii ma dindi ko yëpp bii mooy suma kanam bi dindi dinaa ko bii mooy naturel. léegi su ma ko defoon nii laay mel def naa nii la ko nit ñi di def na seen kanam gi mel ni liir bu ndaw ñu ñëw di wax a def la ñuy def lii daf sax ko gisee xam ne meloo ni boo koy dee defal tuuti rek like noonu laa dee def ay ñaar fukk ak juróom yu noonu nga ko ay ñaar fukk ak juróom bon nga indi ko 100 yaa xam ok no problème maa ngay dem guys maa ngay dem ah kay la batuma ñaan ma sama baay booy mu may ma la yow suma nijaay damay sangu salu kay na waaye de bala nga ñëw may na law yow li nga gën a bëgg moom lay regal waaye yow bala ngaa ñëw may nelaw firuma firuma man yow laa bëgg yow laa miin firuma nga la bët ma yow ah kay la bët ma nga ñaan ma suma yaay booy mu may ma la Lovise, tocco un góor ñi dee guddee ñëw tey bëgg jigéen te yi may seetaan te war a jënd si man bu julli te nay te soxot te saa wu ne ma di leen reeloo di leen fàttali cosaan aka di leen wax li ngeen war a def ba def seen bopp nit te bàyyi seen jikkoy caga geeg seen jikkoy bon gi ngeen di def di yàq seen sëy bu bu ma di leen motiver di leen xas ni suma ma bokkoon ak yéen deeg bàyyi ni ma leen di def il se ngeen sant ci yàlla te def seen bopp nit ngeen may def ennemi te xañaana jënd yi yëre yi may jaay di ma kool naan man ñaata la loolu fa seer bu doon ñaar laa si am su ma leen waxee ne lii juróom-ñett fukki pound la mbeseñ bu xem ni ànd ak tubéyam juróom-ñett fukki pound ñu ñaw ko ñaw bu baax bi nga naan ma loolu fa séer su ma ko yóbboon Sénégal am ci ñaar benn ngay fen ñaar loolu bu doon boo demee Sénégal am ci ñaar fii Sénégal la wala la te la koy pause fa nga ne te pause bi seer te bu bu seet nga di ma seetaan ci firi di ma use suma énergie may wax aka di la bëggal aka def yu baax yu ma xam di la waxal yu baax yu ma xam foofu firi te fayoo ma doo bës sax doo seedoo sax doo donate sama vidéo sax fi ne time jot pour nga dimbale sama vidéo yi nga lànk surtout yéen ñi ma yàgg a seetaan da ngeen gàddu suma xaq te saawu ngeen ma waree jëriñ na ngeen soxot te bon te dundu métti te bon nag dem jëndee ji ko feneen wala ngeen toog noonu di ma seetaan xaw askan wi te saawu ne maa ngi protège seen askan bi su ma neexoon ma ne fi di saaga ndey ba bu set ak a juutu def taati nee naka génnee làmmiñ ni bar bu sibutu yàq sa doom yi yàq sa jarbaat yëpp jàngal leen loolu waaye ba bu set may moytu lu may waxal may de ba tax su ma ni ñuy saaga ndey sama jàpp si yàlla baleen te ngeen soxot nag ba mel ni ay xunk yi butu yéen <laughs> te ngeen ni leen di xas <laughs> waxuma yéen ñëw <laughs> oh my god tey xam na yéen ñuy jënd si man waxuma yéen de <laughs> waaye nañ leen waxante dëgg rek <laughs> ndax góor a Sénégal gi ma koolam barki démb fii naan ma loolu fa seer waaw bu doon senegal la ma xam si ñaar ndax war na maa wax loolu man yëre yi may jënd fay yëre yi lu koy indi fii ak a seer yëre yi li leen di indi fii xam ngeen jeepee num seere li ngeen di fay ci jeepee laay fay lu yëre yi bëri bëri bagage yi ñëw de moo tax may xalaat sax pour demal sama bopp kon indi leen wala la ko pasteur boobu léegi yéen ngeen soxot na tànnay ta bon ni xunk yu si butu <laughs> te kat ngeen di may ay gal xaalis aka defee xaalis ba leneen xaalis ba mënoo koo denc butul bu ndaw bi nga ciy teg pour jënd ci man nga ne bu doon Afrique la maam ci ñaar dafay fen et puis Paol mënoo soo am ñaari mbubu yi ñaw ko ñaw bu baax su ma ñaw kat façon design na bu seer la. su suma ñëwkat bi ñaw bi moom xam nga ñaata la koy ñëwee ay 2000 au moins ñaw bi rek soo ñëwee di ñaw benn yëre loolu ngay fay xalaatal loolu nag te yëre ma di la ko jaay eighty pound rek waroon naa nekk lu ëpp loolu parce salaatu faatiya mbeseñ bi dafa seer su ma ko jaayee du ma si xam dara twenty pound sax du koy mat su ko matee si layam te may dox ba fële poosi post office bu sori bële fi mu ne nii démb maa ngi dem post office bi ñu ne ubbi wuñ maa ngi ni dem tey su ma xubbiwut ma dem ba town bu sori bale poos waaye loolu yëpp du ngeen ko xalaat nayta soxot ta bon direeku naan hii nangam bi ma ko jëndee Sénégal nangam laa ci am te kat bët bu set mooy góor ñi may wax ne ma yaa foni te ngaa baax te gëm sa bopp nag te dooy saaga dooy wax lu bon góor liggéey bi baax na góor góor lu te dëgg ngay wax askan wi ku mel ni yow jafe na ni ma la buggee waa dooy ñëw ma takk la nii ki naa mooy góor ñi nga xam ne ñoo may kool naan ma fa seer maa bugg a jënd yére fa ñu bugg a wax ak man de maa bugg a jënd ma waa ñaatala la ma ne nangam waaye loo dee fa séer bu doon Sénégal la ma si ñaar kon loo may koolee jos bëgg a wax ak man rek soxot ta bon te ñoom ñu bëri fañ may mere nag ne lu ma leen nabut waaw malaa nab nga bañ góori Sénégal la yu soxot yi may seetaan yàlla dana leen musiba de su ngeen ma bawul dindeeku leen ci sama page bi kon ngeen a dund métti tas soxot te ngeen di wax ne jigéen ji ngeen bugg ngeen koy xam by force minu leen jigéen ji leen di wax no yéen yéenay kan nëbbuma leen soxlawuma leen faa am góor gu ma ndox ngeen di dee tukk leen yéen a koy yëg yéen ku leen jox chance sax ngeen naqadi deret ba borom daw joxoon naa fi goro Sénégal chance mu di ma naqadi deret ba ma daw daara yee leen dóor ba ngeen toskare ngeen naqadi dara tas soxot jigéen ji ngeen xam yërëm naa ko da ngeen gàddu xaqi jigéen xaqi jigéen fa am de ñu bari yéen góor Sénégal yu bëri ngeen a naqadi dara tas soxot laaj ko seen jabar yi ba ngeen ko du ñemee wax rek waaw yenn yenn ci def seen bopp nit de naqadi dara tas soxot ku la mën a sëyal ci loolu léegi man su ma la mënta sëyal naguma la wala xam naa ne nga naqari dara te soxot wala jos naguma la you know ka mere ma doo jënd si man ba pare naan ma you know loolu fa seer te lool bu seeroon sax nga war koo jënd di xam ne ami bu bu seet ma di ko seetaan mu di ma reeloo ci ngelaw di ma fàttali cosaan di wax waxi kaw kaw kat di ma fàttali cosaan rek man suma vidéo yëpp man suma suma idée bi yëpp mooy may fàttali nit ñi cosaan moo taxaat yëpp wecceeku ma lu ma nit ñi xas-xas ñi may xas yëpp maa leen gën a doon téeméeri yoon maa leen gën a mën a wonu nit nit lu wax waxi wax yu sexy maa leen ko dàq go ahead and get prepared for Juma. Man gaya go ahead and get prepared for Juma. You go ahead and get prepared to, to, uh, to get to hell. I'm not going to Juma right go and get prepared for Juma? do you know if I'm on my period or something? I am a woman. You prepare for to get to hell. What the hell? Do you think if I go to Juma now, I'm gonna be better me or what? Do you think if you're going to Juma now, you're better? And if I don't go now, do you know why? And do you know if I'm doing other things that you're not saying that I'm not telling you? Like you are telling me now to make yourself feel good. Do you know if I'm doing something better am not telling you it, which is more rewarding, by the way. Get to hell, whoever the hell you are. You are one of my haters. All of my haters can get to hell. I don't care. Sorry, faham kenn ku ma doon naan naa dem juma. Naa pare pare dem julli juma. <laughs> oh my god. Ma ne ko awoon daa maa ci de jigéen laa. Ba pare. mën naa xam maa ngi def leneen lu baax yëgoo ko yow ngay dem julli jumaa ñëw di ko yebaane ci àddina loolu du julli ji jumaa loolu mooy gis leen ma allo maa ngi julli ji jumaa de jullit laa ah leen ma no one cares ñun nga koy defal wala yàlla get to hell yow moom dangaa natural kay moo tax waa léegi nag moo tax na léegi gars yi because maa ngi natural te gars yi dafa xam suma followers yu bëri yoo xam ne dañ fake li ko askan wi dañ miin fake you know di tubaab tubaab loo ko nit nit lu I don't know like this fake stuff so léegi nag bañ gis ma natural mel ni dañ ma ko xañaane wala dara wala fañ réccu seen fake bi noonu laa ko dee gisee tax ñi di ma xeeb di ma tuutil di ma xas di ma wooye salte dof tax xam nañ ne natural la de xam nañ ne suñ cosaan rek la is nothing to do salte xam nañ ne suma salte mooy ne seen juróom-ñaari maam yi fañ salte you know parce que ñoom laa ko jàngee you allo soo suñ may xas seen bopp la ñuy xas ndax xam nañ ko waaye ba tey ñu continuer di ma tuutal di ma xas that's fine waaye léegi su ma nee di muñ loolu yëpp ba tey continuer suma liggéey bi rek ne mukk du ma wecc di wax dëgg you know di doxal lu ñuy dimbale xat yi yëpp te ci nag mu indil ma ennemi yu bëri indil ma saagay ndey yu bëri te ma lang ne mukk du ma wecc su ma neexoon bokk naa si yeneen vidéo yu bon mbala ma support nguur jëlee ci xaalis bala may saaga ndey mbala may waxi caga di juutu nit ñi di ma seetaan te duñ ma xas nu ko noonu dinañ ma xas bot different xas lay nekk because nit ñu féeg ñi te bon ñoo gën a bari da nit ñu bëgg dëgg ñi waaye mën na ne ma lang rek ne mukk di def lu baax di wax lu baax at yëpp lu ñu dimbale waaw léegi-léegi ma lonk nit wax ko dëgg nit ñi nit ñi mer because askan bi bugguñ dëgg yu nu miinuñ dëgg bot dama dee lang lu baax li rek te rek laay dee sama lu baax mbuumam nebe daay sax fu ma toll di leen wax ngeen lekk ko xat yi yëpp laa jël ñi di ko promote pour ngeen xam fan bu gudda wér gi yaram xéene leen loolu tax bat bu set ma wax leen ko mboolem lu ma xam ne fa baax ci yaram te fay joxe fan bu gudda wér yaram lu ma xam ne fay ma ne leen oytu leen lii da deere nangam nangam oytu leen ko mboolem lu ma xam ne baax na ma ne leen lekk leen lii def leen naa ngeen lànk rek kële ñu rek xat yi yëpp ne mukk da ngeen ma def ennemi ak ngeen may fay ngeen may def ennemi mënu leen maa fay suma liggéey ci askan moo baax te baax si yéen baax si seen juróom-ñaari doom baax si suma juróom-ñaari doom sët sëtaat sori moo tax du ngeen a fay bu ngeen buggee fay xaqi askan wi yëpp tout moo leen di dal because pour askan wi laay liggéeyal fu firi su ma neexoon may support nguur mënu bëri wax mi macha allah di tàgg ñi di ma fay su ma neexoon may waxi cagaaka juutoo ko saaga ndeeka ñi koy def gënuñ maa sañ gënuñ maa xam aduna su ma neexoon may manière manière sexy solu soli sexy wane wu di yàq seen doom yi di leen jàngal ji koy xajju man la neex man lànk yooyu yëpp xat yi yëpp def suma bopp nit lu ngeen ma xas-xas su ma neexoon bu ngeen mu saagaa ndey ma ñëw lonk leen saaga seen juróom-ñaari ndey man la neex may muñ a ka def sama bopp nit ngeen soxot nag ba mel ni xunk yu si butu yéen ñu bari tak takat ngeen ne man maa soxot su may wax ni dëgg ngeen ne maa soxot leen yéen a ma gën a soxot kon bu dee maa soxoti danaa ngeen ne maa soxot man na maa ngay dem suma bagage yi nag saa may jaay lu baax ngeen lànk wax naa leen bitakola maa ngi koy jaay kurus maa ngi koy jaay kurus yi tasab ak kurus yi you know wirda yëpp pour weeru koor danaa si defaat vidéo again kurus fukki dërëm la yu guddi yu gàtt yi tasab yi juróom-ñaari paawun pastiwal daa xam naa ko xam naa mbor mbor ténkili baa tii yi ngay baxal weeru koor noonu xam naa basaab bu xonq xam naa sungu fi buy xam naa sungu fi mbuma nebe xam naa yére yile lu ne maa ngi ko xamee te yéen ñii seetaan nag di ma di leen bégal ngeen di reexaka di ma jëw di ma xas surtout yéen ñi may jëw di ma xas yéen a war a gën a jënd ko yéen ma gën a xamal xàq ju bëree bëree bëree bëree bëree bëree yéen ñi may jëw di ma xas nag yéen naa feq yi may jëw di ma xas yéen a war a gën a jënd ndax yéen bu xaal laaxiraa su ngeen ma fayees li ngeen ma jëw yëpp du ma du ngeen xam dara du ngeen xam benn tiyaaba bu ngeen di jëlee si man yàlla ngi leen di ngeen may def at yi guud maa ngay dem nag xentu leen jàmm <laughs> def leen seen bopp nit yàlla na ngeen def seen bopp nit yéen waa askan wi te am ne askan wi suñ defu suñ bopp nit duñ xam jàmm moo tax ma lan ci at yëpp di ko wax feeg defuñ ko duñu xam jàmm continuer suñ jikkoy naafeq yi suñ jikkoy féeg yi duñu dimbale moo tax ñu xal koo nii xas nañ ba ni rikk nag ba xal ko nañ dellu gannaaw nag dëpp cok maa ngay dem nag wax naa leen ko nag xendu leen jàmm